asalaamaaleykum sama gars yi ñu ngi leen di baax di leen ziar dalee nag jàmm ci seen chaîne bi di Dara Man Mobile tey benn vidéo lañ bëgg indi boo xam ne message sur WhatsApp yoo xam ni euh, gis nañ ko ci WhatsApp yoo xam ni il faut nga pour nga am ko nag il faut nga mettre à jour euh, sa WhatsApp mettre à jour WhatsApp nag bul fàtte ni boo dikkee Play Store boo dikkee Play Store euh, soo bindee ci barre de recherche bi WhatsApp. boo ko bindee rek boo defee recherche euh, fii nii mise à jour la la fi bindal wala nga cliquer ci kawam voilà fii missage à jour la la fi bindal. fonction yi ñu ci yokk par exemple xam nga su fekkee dugg naa fii pour déglu benn vocal. Hmm, su may déglu vocal bi boo mën maa dëpp su ma dëppee gis nga vocal bi da koy gis nii ci kaw xam nga bu njëkk saa ba ma saa dëpp day day dagg da nga ci kaw boo gisee nii ci kaw bu la neexee nga bës plus bi nii mu mu effacé wu bu la neexee nga def ko pause nii bu la neexee nga duggaat ci discussion bi nga doon dégloo vocal bi mooy soo cliquer nii ci kawam mooy benn bi beneen su fekkee da ngay faral di def ay vidéo wala da ngay faral di ko ci euh, euh, di filmer sa écran di bañ image yi nekk ci whatsapp bi di feeñ wala nga am leneen looy def daal bañ image yi nga xam ne si mi ngi ci whatsapp bi kenn gis ko bañ sa discussion gars yi gis ko loolu tamit eh, am na benn option bu am solo boo xam ni eh, bu bees la ci maanaam par exemple su fekkee da nga ko bëgg archiver mën nga sélection do yëpp benn nga jaare ci paramètre bi am na foofu benn programme wala nga xool benn discussion bu la neex rek moo xam benn groupe la wala benn nit la nga eh, def appelon téye boo defee appelon ba ko coché wu nii da ngay dikk fii nii ci trois points boo ñëwee nga cliqué mu génneel la lii nii léegi gis nga nii ci suuf tout sélectionné ji nii soo ko bësee day sélectionné lépp léegi bu sélectionné nga ñëw fii nii fii nga voilà léegi xaaral soo comme sànq dama ko activé woon léegi soo defee noonu nga dikki fii gisoo su fekkee dafa googu flèche bi suuf lay jëm nga flash baa ngi nii suuf lay jëm nga bës ci kaw flash voilà nii laa bëgg wax léegi gis nga 379 euh, discussion euh, masqué wu nañu léegi su ko defee su fekkee kuy def ay vidéo mën nga def sa vidéo ba mu ba mu jeex ci paramètre bi yii nii paramètre dugg paramètre def fa lu la neex euh, li nga bañ mu génn bu génn léegi su fekkee ci biir paramètre bi nga ko soxlaa da ngay ñëw paramètre nga ñëw discussion boo dikkee discussion nga ñëw bu ñëwee paramètre nga ñëw ci kii discussion bi ma la waxoon nga ñëw historique boo dikkee historique voilà nga ñëw fii nii Hmm, désactiver toutes les discussions xam nga comme activé woon nga ko soo bësee fii daf lay wax ne la euh, voulez-vous euh, êtes-vous sûr de vouloir désactiver toutes les discussions comme danga ko koo activé woon sànq nii nga ni waaw mën koo désactiver fii même soo koy activé tam fii ngay jaarewaat voilà léegi soo fekkee da nga ko bëgg a désactiver nag soo defee mu désactiver wu xaaral activé waat ko pour désactiver ji ko fële. mu ndax danga ko bëgg a fii nga ni waaw léegi comme activé woon na boobu mën nañ génnaat activé woon na gis nga lii nii benn discussion feeñul su fekkee da nga ko bëgg nag désactivé da dangay cliqué ci kaw boo cliqué ci kaw mu génnee la lii nga eh, def benn discussion appilon boo defee appilon mu génnee la lii nga ñëwaat ci baar bi sélectionné tout voilà léegi bu ko defee sélectionné nga lépp nga ñëw fii nii flèche bi jëm kaw boo bësee gisoo message baa ngi nii ci suuf léegi saa desactivé wu na quoi aywa loolu ma nekkoon vidéo bi di leen jaajëfal asalaamaaleykum